gestion tey ñu ñu dégg ko moom ci communication moom Sokh mu ne Marley fi mu jëlee baaxul ñu ne ko lan moo tax loolu mu ne Marley damaa ñëw bëre ak nga xam ne mooy Franc bëggoon ci am victoire waa Pikine ñëpp ngeen ma nekk sama ginnaaw doon ma xaar ci combat boobu ma ñëw effectivement tey Marley ñëw jëlaat ma loolu moo tax ma ne Marley fi mu jëlee baaxul est-ce que Sokh bu ci Franc ñu daan ko mu ñëw war a jëlee war ak Marley loolu séddale ak ay yombu soxma mooy kan nit kese la di fanaan la jóge daanu tere daan ma incha allah gëm-gëm la bu nekk man maa ko tànn bëre maa ko ëpp fit maa ko ëpp kàttan su dul rëy yaa xam ne sant yëpp di leen di baax a baax di ziar di nuyu perte bi bu baax a baax di nuyu Marley di nuyu sa spectacle yëpp Marley mi ñu daan gis bopp terrain bën bën ka Marley boobu dinañ ko gis bu suur combat bi. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax Marley bi ñu daan gis terrain bën bën Marley bi ñu daan gis école 25 Mbapat Marley bi ñu daan gis terrain xonk Marley bu bu raw boobu sax mooy ñoom parce que mooy li ma ko wax rek combat bii nii dinañ xeex dinañ bëri man damaa mbapat dama naan toog vendredi samedi dimanche damay jël saako ceeb sama waagaale pour ñu jënd ceeb sax problème la bu Moussa ne ñëw sama yaay day jël benn bi tas ko séddale ko waa kon yeneen ni mu bàyyi ko si biir kër gi man sox musuma dégg fu mu mbapatee man duñu benn de wallahi duñu benn bëri sax duñu benn incha allahu rabbi bu la gàllankooree day xam ne lépp dëgg la. marle mi ñu daan gis daan benn taxaw ak luur nga am luur bu mel ni soog est-ce que daan def ci luur bu jour ba dinañ ko xaar ci marle. lu ko raw laay def lu ko raw nee naa la moo nekk si ñun gëm boobu moom la ñuy nekkul si lamb kese rek lépp lu ñu mën di nekk gëm-gëm lañ a demee ndax àdduna lépp jixaat loo jixaatul rek doo ko am lislaam sax bi taxaw jixaat moo tax ñu am ko kon dañuy ñu ngi ñaan daal yàlla rek ñu mënoo am gu mujj sa diggante. waaye comme ni ñu jàppale yeneen mbër yu mag yi ba am na boobu yoon waaw maa ngi sant yàlla mais des na xaj na mooy li ma wax léegi rek Balla Gaye tey toll na foo xamante ne tollagul fa du ñu naataabule suñu bopp ak moom mais képp koo xam ne doomu géejuwaay rek te am yéene ne war naa mën a jàppale géejuwaay rek boo ñëwee jàppale ñu xam nga waaw te soxla na ko quoi comprendre nga ñun gis nii nga nekk nii fii yëppal la amul xot moom moo nekk fii Fra ah, bu ko neexoon mu ne yëngal laay représenté mais diggante fii ak Guédiawaye benn la quoi mais teewul daf ñuy jàppale comprendre nga dañu taxaw saa bi gis nga démb laay soo wax ak Malick Ba mi ma si loolu nga Xafoor Touré moom it na si affaire yi bu baax suma doomu nday yi nii booy say moom Xafoor benn lañ quoi mais Ahmed Aïdara moom it ñu xaar pour mu si mais jàpp ko si nga te dafa war a ay doomu génn waaye nag di ñu woo Pape Mama Fall bu baax moom it mu ñëw jàpp si xam nga di woo Abdou Aziz Ndiaye bu baax di woo Baye Ndiaye waaw kon nag di woo waa génn waay yëpp waaw di woo Racine Talla monsieur le maire mu ñëw jàpp si monsieur le maire Mara Gueye moom it ñu koy woo pour mu ñëw jàpp si parce que ñun xam nga waaw ay doomu génn waay nag quoi te am na loo xamante ne nii bu ñu xewlee gars yi war nañ mën a def teew pour jàpp si ndax génn waay la ñuy représenté daa dem.

sox muy naanaan naanaan boo xam ne def na ay preuve waaye Marley tamit def na ay preuve ñu gis ni Marley dafa def ay sorties publiques bëre ak ki nga xam ne mooy Khadim Sarr daan ko ci façon jël waaye Marley bëre ak yi nga xamante ni mooy naaru sokaas daan ko ci façon jël ba Marley di naanaan tey sox bi ñu koy dégg ci communication dañ koy dégg lu ci bari mu dafa daan sama garaan naaru sokaas mu mel ni day ñëw bëre seeg yow ak revanche boobu tey soq mu ñëw war a bëre seeg Marley ak revanche boobu tey Marley loolu la ñuy xaar ci moom bu soq ñëwee. Fallou maa ngi lay fay bu maa ngi xaar revanche boobu mu ñëw